Euh, euh, lii euh, projet bi ñuy tuddee projet boo xam ne gouvernement américain bu na bu États-Unis moom moo ko samp pour jàppale ko gouvernement Sénégal parce que xam nañ ne diggante gouvernement américain gouvernement Sénégal jàppalante bi dafa yàgg rawatina lépp lu jëm ci koomu dëkk bi koomu réew mi ci wàll woowu nag le gouvernement wu Sénégal Euh, ubbeeku ci gouvernement américain pour yëgook moom ne ko dafa am ay jéego yu mu bëgg a def ci yoruñu euh, gafak réew mi mooy li ñuy wax budget fexe ba budget boobu euh, nam koy yoree déjà doole ji gën a yokku donc koom bi gën a yokku koppar gi gën a yokku wante aussi na mu koy yore gën a leer gën a mucc ayib mais aussi fa mu koy jëmale amal njëriñu askan bi loolu nag le gouvernement américain jàpp ne jubluwaay bu rafet la bu baax la bu am njëriñ la pour askan bi moo tax mu samp projet bi ñu tuddee ko projet USAID appui à la gestion des finances publiques cest dire mooy jàppale gouvernement wu Sénégal nan lay gën a mën a doxalee euh, euh, yoonu gafe gafakam euh, ci loolu nag daf ci am benn pàcc boo xam ne pàcc bu am solo la mooy li ñuy wooyee tubaab bi wooyee transparence mooy leeraange ci mbir mi Euh, euh, ndaxte jàpp nañ ne askan bi daf ko soxal loolu daf ko soxal ni ñuy yore koomu réew mi ni ñuy yore euh, alalu réew mi te nga xam ne di ko jublul ci ay ay bëgg-bëggam ak ay soxlaam bëgg na aussi mu xam na la naka lay demee ba lépp lum ci bëgg a xam mu xam ko ci te bu fekkee aussi taxawaayam daf ci am solo te mu war cee dugal ay am ci wàll ci nañ koy tëgge nañ koy doxalee ba ci ci pandaw ga mu am ci wàll baax na aussi ñu xool ay pexe yu ñu jàppale gouvernement Sénégal ci loolu ci wàllu woowu loolu nag mooy suñu taxawaay ci wàllu projet bi moo tax bi projet bi sampo dafa gis ñi nga xam ne seen taxawaay dafa jublu ci loolu mooy li ñuy wax organisation société civile société civile Sénégal bari na ñoo xam ne yàgg nañ fi di di lijjanti wàllu woowu di xool gouvernement bi lan la gën a mën a indi leeraange ci ni muy doxalee nan la mën a gën a fexe ba askan wi nga xam ne moo tax mu mu taxaw te di liggéey nan la ko mën a boolee ci ni muy tëgg budget bi ah nan la koy euh, nan lay doxalee mbir mi ba nga xam ne ku ci nekk mun mën cee gis boppam loolu nag euh, moo tax ñu gis société civile bi fi nekk ne ñoom dañoo bëgg gunge ci loolu gouvernement bi tamit ànd ci loolu ñu fexe nag ñun nu ñuy dëgg euh, indee ndëgër laay ci seen taxawaay boobu moo tax nag ñu tànn ci fukk ci ñoom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 dooleel sob société civile bi ba nga xam ne moom taxawaayam mu gën a dëgër euh, boole ci bokk na ci yenn yi nga xam ne waxtaani budget nan la tëddee ba képp koo xam ne dafa amul lënt-lënt ci sa bopp loolu loolu loolu set wecc yooyu nag bu fekkee ne société civile da ko da koo taxawee ñun dañ ci sawar lool te gouvernement bi tam sawar na ci moo tax d'ailleurs activité yi tëral yëpp dañ ci bokk kon boog loolu moo taxoon ñu ne tey nañu dajaloo euh, wàllu gouvernement bi euh, wàllu société civile wàllu euh, média yi mooy presse bi journaliste yi nga xam ne lépp loo xam ne aussi nit ñi war nañ ko yëg ñoom dañ ci am taxawaay bu mucc ayib ñu leen ci sargal ñun ñi nga xam ne aussi ñun dañuy yombal loolu ñu booloo ci ndaje bi yëgoo ci wàllu woowu yëpp ne ah gouvernement bi bëgg nga am taxawaay ci leeral ji ngay doxalee bugg nga aussi askan bi gis ci boppam am ci taxawaay ba gunge la ci. société civile aussi bëgg na jàppale la ci wàllu woowu ñun ñi nga xam ne aussi côté gouvernement américain samp nañ ab projet boo xam ne la ciy jàppale nañ ci waxtaan kon boog waxtaan bi loolu moo ko indi tey ñu ne nag kon dañ ci boole suñu mbokk journaliste journalistes yi parce que seen taxawaay euh, lu ci bëri bu ñu bëggee mu bañ a ump nit ñi il faut ñoom ñu fekkee euh, pour jàllale yu bëri laaj aussi yenn yoo xam ne jàpp nañu ñoom seen taxawaay taxawaayu askan wi la parce que dañuy laaj loo xam ne dañ koy dégg ci ñeneen jottali laaj boobu tam baax na ci comme ça ñu leeral leen ko fii ba nga xam ne buñ ko tegee feneen ña ña ña euh, solo woon laaj boobu tamit am ci ay leeraange.